tëje ñaanal kilifay diine yi ak kilifay aada yépp waaye ñaanal président de la république président Macky ndax lii su amee yàlla ak moom ragal péete nag dafay xañe a wërsëg dama ànd ak moom mu téel ma boppam jox la ndigal yaag chef de service yi ndigal bu ñu leen joxe woon def ngeen ko li ci des mooy jaam dana yéene yàlla nag moo yeggale yàlla na yàlla yeggale yéene yépp ndax ren màggal gi bu ñu nee afi bàyyil xadiim sëriñ Moustapha Mohamed taaw sëñ Mbàkke soxna loo moom biir réew mi la ak bitim réew ñëpp ñëw ñu yaatal dënn yi nag santaat yàlla sant président la république ci li mu nu ci dolleel ci màggal gi muy post de santé bu mu nu tabaxal ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi nga xam ñooy santé ci eh, région bi ak département bi yëpp docteur yëpp taxaw nañ ci nga xam ni dañuy boole màggal gi ak immigration bi gërëmit bu baax ministre de l'intérieur moom di kenn ci man may kenn ci moom Antoine Diome ak membre gouvernement bi yëpp. waaw wàccaayu bis bi mooy waajal ko rek bis bi. bisub Serigne Touba la xam nga bis bi gouverneur li tax ñu di ko màggal sëriñ Touba moo ñëw Louga war a dem bari jàmm Cissé mu ni ku ma mën a yóbbu bu jàmm te loolu yëpp sëñ ni ko man sëñ Mahmoud nag ndeyam dafa dëkk peex mu bàyyi yoonu bari jàmm léeg mu dox tuuti sëñ bi ni ko Mahmoud dégg nga ni réeroo Mahmoud baa réeroo ba mu yegsi ci dëkk bi mu ni ko damaa réer peex réer ma bëgg ku leen gindi sëñ Touba julli fa waxtu yu juróom. ba mu jullee ba pare def ni armeel yi ñii ñu fi xam na ni ñëw naa fi tey ku ñu fi indi sama ginnaaw da nga xam ni dikkoon naa fi loolu mooy màggal gi yu nu ñàkk muy sëriñ Moussa Mbakke Masamba ak sëñ Cheikh Mbakke bu sëñ Modou Fati Xari ak sëñ Modou Maxtaar moom sëñ Cheikh Aw Balla bu daru Daaru Marnaan ak sëñ Abdou Yàllaay buur xalifa Maam Mor Jaara ak sëñ Jiili Mbakke xalifa Maam Cheikh Anta ak sëñ Maam Mor Mbakke di doomi sëriñ Fallu ak góor a ngoom xel comme baas ndax at mu jot moo ma doon baasal baas yi ci peex te duma laaj dara kooku danaa ko rendre hommage ñaanal ko yàlla yàlla na leen yàlla yërëm te yéexe leen